Salut les amis des Sport TV, merci encore de de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des merci également de baisser des commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois, des partages et des informations, inbox sénégalais, fait pour les Montenegro, 14 régions du Sénégal, Roukhoukhari, ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci lal hôpital ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñoo rek ñu nekk ci kasso yi nga xam aussi erreur judiciaire gi ne ñu deful mo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i ñi ñi delluwaat doona suñu borom xar leen ajane fi daw ci gars yi xéñu on avance ensemble dans la magie des sportifs et des baba show en continu gay yi actualité bi ñu fas seen équipe nationale du Sénégal ak donc Aliou Cissé et Liko Dal ci match bi contre Cameroun mais aussi wax le double le plutôt le duo de la défense des deux côtés de l'équipe national nationale du Sénégal mais la boobu qui ki donc manque Mike Maignan hein, encore une fois foofu noonu de Italie franchement ça mbokk Italien. yi daal dama xamul dal quoi encore ay yooxu yoo xam ne yooxu et tout ñu teg ko ci ndoddu gardien bu AC Milan également gardien équipe nationale de France ba tax na ñëpp ñu ngi àddu ngir daal di koy défendre kii nag di euh, Kylian Mbappé Oui di fàtte ki xam donc Emiliano Sala des joueurs euh, bu notre nga xam nag juróomi at ak nii ba mu daal di woon euh, gaañu hein, ci accident bu mu defoon moom moo doon demoon waroon dem signé ca Angleterre ki nga xam nag ma donc Ronaldo Ronaldo na gars yi du bàyyi de Ronaldo nee ballon d'or bi heure daal jamono yi jamono <laughs> ballon d'or jaratul dara nee waxul ne. ñoom Messi ak Alan ak yow duñ ko jël quoi mi neen jamono ji résultat ñu koy joxé nañ ko wara xolaat Ronaldo bi né mom dal bëgg na jouer ba 44 ans maximum né 42 ans dal dina ko dugg après mu xol lu mu ci teg rek bonus la ki nak di José Mourinho gënaaw biñ doon wax euh, jegeem di côté de Al Shabab finalement mom confirmé né dal ci euh, li Fabrizio Roma wax Roma wax né di dem du côté donc de l'Arabie Saoudite du fa dem pour l'instant ni dal mënu amaguñ lu firndeel lu ni mel ki nak également di Victor Boniface l'international nigérien nga xamné nak dafa dellu du côté de l'Allemagne vers Bayer Leverkusen gannaaw mu am gañu gaañu fi club yu bari notamment ci Angleterre West Ham et tout ñu ngi ko ciblé pour daal di koy recruter ki nak di Moise Kean mom nak dañ dem du côté eh, de euh, du Bayern Munich la jëm ah. donc du côté de l'atletico Madrid jégalu Atlético Madrid lay daal di dem grave nga xamné club yu bari même Bayern ciblé won na ko Moise Moïse Kean finalement ah, Juventus da koy aale euh, waa Atlético Madrid ki nga xam nak moy John Lopi euh, Fabrizio Romano daal né na club bi di Fribourg moo tegoon Fribourg ñoo tegoon ci table bi fukki millions millions ak euh, juróom 15 millions pour daal di koy recruter mais ñi nga xam ne donc euh, clubum Almeria ñu daal di bañ ne ñoom duñ ko jaay moom mi nga xam nak ben saison rek la fa defagum Dion Le Puy yi wane fa boppam même bu fekkee ne fi mu ne nii lanterne rouge manam moo nekk ci ndàdde bi fofu non du championnat euh, Liga espagnol mais club yu mag daal ñu koy topp jamono ji ndax limu mu di def. kii nag di Abdallah Sima gannaaw bi nga xamee ne jugee na ci équipe nationale du Sénégal bi ndax gaañ gaañ bi amum bataaxal bii la daal di def ah, Sima boo xam nag ah, wax na ne li nga xam mooy donc naqaar gi mu am ti jugee ci équipe nationale du Sénégal mais teewul benn yoon mu ngi ci ginnaaw équipe bi ndax équipe bi benn famille la et que moom daal mi ngi dem defaruwaat ba gën a wér na Sénégalais yi ñaanal équipe bi Abdallah Sima mi nga xam nag joueur la boo xam ne cata ko topp comme on ah, def na saison baax a baax a baax ñëw na ci li nga xam mooy liste bi euh, ñëw bu mérité la kenn du jiixi jaaxe ne waroon na cee bokk kon dañuy wax tey également dañuy wax tamit ci li nga xam moy donc euh, lii di défense bu équipe nationale du Sénégal commencé ko ci Ismaël Jacobs mi nga xam ne nak aujourd'hui nek na la trouvaille de Aliou Cissé ci li nga xam mooy donc Coupe d'Afrique des Nations bi nek ci dynamique bi nga xam ci la mais aussi on va parler aussi de Crépin Diatta Crépigno le joueur sénégalais bi nga xam c'est un milieu de terrain offensif ah boo xam ne de dañ ko jël yóbbu ko muy jouer li nga donc euh, arrière latéral ci équipe nationale du Sénégal donc dans le rôle de piston elle n'est joueur boo des déterminants en l'absence de qui on veut donc pour les deux premiers matchs premiers matchs joué qui euh, voilà euh, euh, réussir pour l'instant il est exceptionnel phénoménal stratosphérique il est très précieux défensivement mais surtout offensivement parce que c'est un joueur Il offensivement il est très technique il du Sénégal suivre à 100 hein, mais mais blessure bi mu amoon euh, li nga xam mooy donc blessure bu metti moo ko xawoon sonal et que loolu mënut woon gaaw wér aujourd'hui Krépin Diatta train également moom di wone li nga xam mooy donc li mu mën yëpp mais aussi ma a neex mooy nee na man daal gars yi saway Sénégal bu ma daal di góolu ndax Sénégal moo ma ñor mais aussi ki nga xam ne moom ah, tey ah, doomu Sénégal la boo xam ne ñu ngi fierté la suñun muy Ismaël Jacobs Ismaël Jacobs mi nga xam ne gars yi naa leen ba ma koy suivre <coughs> boobu mi ngi ca Allemagne waaye li ma gën a marqué ci moom mooy ba mu conférence de presse ne moom daal fi ne nii moom moo bëgg a ñëw Sénégal et ba mu ñëwee ba léegi gars yi liñ naan yàqu ci dara en l'absence de Saliou Ciss Ismaël Jacobs mi ngi tenir rôle am mi ngi tenir place am mi ngi def ay match yu énorme yu match yu extraordinaire et que tey euh, Sénégal force mi bokk na aussi sur les côtés on parle peut-être euh, dañuy gën di wax si ñoom Sadio Mané et tout mais Ismaël Jacobs ak ki mooy Crépin Diatta ñoom abattage technique bi ñuy def li ñuy wane ci li nga xam ne mooy donc si euh, bagage technique li ñuy apporter équipe nationale sur le plan offensif sur le plan défensif nekk na loo xam ne gars yi kenn du ko ko naatable je pense que nous aujourd'hui bokk na ci élément clé yo xamné ne li ñu ñoon soñu rek mooy ñu gën di centrer et également ñu gën a nekk des joueurs décisifs mais pour l'instant dal comme je dis nank-nank tép tép gën ñu leen et pour ñëw na gars ci kaw bu Aliou Cissé Aliou Cissé bi nga xamné gaay gis ngeen né déma ñu bari dañ wax malaise de dëggantaan mais dafa amone ay problème gastrique manam biir bi mo doon metti lool nak liñ ci mëna wax indi leen ci ay détails mooy ko né Aliou Cissé avant jongante Sénégal ak Cameroun la ko loolu sonaloon mu daal di koy wax ak li nga xamné donc ñenn ci wàllum staff bi mais téwul ben yoon Aliou Cissé ñëw na taxaw taxawaayu gaynde taxawaayu leader accompagne équipe am li muy doon rey yëpp ak aussi taxaw doon yëpp mi ngi doon yëg yey méttit yoo xam ne voilà ma ngoog moom moo ko doon yëg ba match bi jeexee nag ba ñu yegg fa nga xam ne mooy donc foofu noonu ci seen hôtel ba la ko mbiri gën a gën a sonal gars yi daal di koy yóbbu fa nga xam nag mooy donc ca euh, l'hôpital pour ñaar di koy xool donc aujourd'hui encore une fois di wax ne Aliou Cissé moom mi ngi ci jàmm dellu si na ak équipe nationale démb si guddi la fa daal di yegg ndax bu bëggoon sax bëggoon na sax ñëw euh, li nga xam mooy donc 5 heures ci ngoon entraînement bu daal di koy fekkee mais gars ñu ne ko mu dañ koy gën ñaanal wér mais aussi day gën a war ne doomu Sénégal c'est un véritable patriote comme je le dis encore une fois nee nit moom bu défé lu bax wax ko et comme je dis nous on essaie chaque fois dañuy jéem def ay critiques yo xamné ne critique positive la parce que gars yi dañu xamné ne critique dafa am critique positive am critique négative et que tey Sénégal mo ñu donc si c'est su défé lu bax il faut aussi avoir l'honnêteté de ko dire de le dire comme bu défé lo xamné japp jàpp nañu ne baaxoon nañ ñaan ko tamit baaxul mais téwul ben yoon il reste encore une fois un fils du Sénégal nek sélectionneur du Sénégal et dans ce moment là dañ koy gën soutenir gars nak ban gis-gis am ci nga xam donc les performances de Crépin Diata ak kii di Ismaël Jacob également Aliou Cissé jaa ngeen